asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 14 juin 2019 ñu ñëwee ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb la ñuy xëy njëkke ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci ñaari xale yoo xam ne day samedi jiiru jëm wala boog samedi suba jiiri ñëw day jàppal ne bu ñu ko fekkee te tal ko ñoom ñaar ñii day ñoo fas yéene nag laale ca fii nga xam ne mooy arène national muy giri de di rëg-rëg yëglikaay bi xëy leen wane ñoom ñaar ku nekk yaa nga solo takk say jaaj di dox maanaam daal di waaxu mel ni ku jëm ca bés ba yëglikaay yi ne jàppal day protéger mbay géey bi ak ki nga xam ne day mooy doomi Papa Kane ji day dafa mel ni fi mu nekk nii day di Gris 2 wala muy Reug Reug day yëglekaay bi daa ñëw ci ñoom ci seen ay parcours jàppal bu dee ki nga xam ni day moo di Reug Reug la yëglekaay bi ne day ay kombaam jàppal am na douze victoire ñaari sans verdict mu mel ni ki daal ba mu duggee ci làmb lit avec frappe ji ba tey day mu ngay wane boppam bu baax a baax a baax ndax nag yëglekaay bi suñu lamb xëy na tey wëral ñu ko wax ñu ci moom lu leer nañ jàppal Reug Reug day ay testam ba mu ko defee moom réussir na ko kii di Balla Gaye senior Reug Reug da koo wan boppam Bébé Saloum Jordan ñoom ñëpp ku ci ne day am na fu mu jaar ak yow ba na mu ji boo na mu ñëwee nag ci Elton muy victoire boo xam ne day bokk na nag ci li ko may tey nit ñi jàpp ne kii day ëllëg mën naa bokk ci ñuy téel làmb ji wala boog mu nekk koo xam ne day roi des arènes mën na koo xeeñtu yëglekaay bi di sunu làmb day moo xëy tey ñëw di nu ko wax donte nag duggam ci làmb moom xawoon naa nekk loo xam ne day lu nekkul woon lu foor biir day dafa mel ni nag mu nga gën di wane boppam lu muy gën dugg kam ko seqal di giri de bi ñëw na ci moom moom huit combat la def huit victoire moom itam day défaite amagu ko moom giri de yëglekaay bi nag jàpp na ne day poulet wu mbay gay bii day nee na boo bëggee dégg dëgg day taalibe la woon boo xam ne day ca daara ja daal ca la jógee waaye taalibe ba nag tey dafa xëy nekk daal réforme boog wala muy génte daal mooy nekk benn grand champion boo xam ne day bu mag a mag lay doon ci làmb yëglikaay bi ñëw na nee na jàppal champion d'Afrique yi moom masu leen a jaarale aw yoon ku mu ci jàpp rek da lay wan boppam daan la dem aw yoonam moo tax yëglikaay bi nag jàpp na ne xale bii day ah daa mel ni nag waa Fass day jàppal fi mu nekk nii day daa mel ni nag bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax li ñu bëgg daal mooy moom mu wane boppam bu baax a baax moo tax Gris Bordeaux mag ja mu ngay wax nee na li ñu bëgg daal ci moom mooy pousser ko ngir nag mu am li nga xam ne mooy victoire bu rëy ci digganteem ak. rëg-rëg Abbas Ndoy mooy président Agri ba tamit wax na nee na rëg-rëg bis bu ñu ca yeggee samedi lay xam ne moom ñi ko naan yaa dàq bëri Gris dañu koy nax ndax jàpp na ne moom Abbas Ndoy loolu ñuy wax rëg-rëg amul te dàqut ak bëri Gris 2 tey suba waxi noppi rëg-rëg moom kii kii di Lac Rose tamit mu ngay wax ak moom ba tey Lac Rose nee na ko day jàppal du yow yaa nuy ragal loo wala nga nuy tiitloo buñ ca yeggee nag di nga xam loolu mooy tey loo xam ne yëglikaay bi sunu làmb xëy na ñëw ci leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw muy ñoo xam ne daaw day seen saison neexoon na lool muy kii nga xam ne moo di Modou Anta ak rakk ja laay goote waaye ren nag moom des leen a déggul wala ñu gis leen ak ay bët ñoom daal ñu nga ne cell falu na cell jàpp seen bopp waaye yëglikaay bi ñëw na ba tey ci leen loo xam ne day mooy kii nga xam ne moo di Calme Ndour di Grand Mbagnick moom nag ne nañ kombaam taxaw na moo kii nga xam ne moo di Pape Yékini loolu nag ne nañ mooy nekk spécialu Zambala ak DJ le 31 juillet lay am yëglikaay bi sunu làmb moo xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi wax nañu ko muy ab écrit boo xam ne day ñu ngi doxle bu baax a baax muy kaay baax ñoom nag daa mel ni seen bët fa ñu ko teg mooy ca sunu làmb door ba quatre vict quatre victoire la ñu am keroog ci arène nationale ba ci quatre combats yi nga xam ne amoon nañ ko fa yëglikaay bi ni sunu làmb xëy tey ñëw ci ñoom écrit kaay baax boobu mu mel ni ñoom ñu ngi doxle fi mu nekk nii bu baax a baax baax a baax waaye dañ fay jóge nag dem fa point net drapeau chef de ba mu mel ni kii tamit fi mu nekk nii day yëngu na jax na lool ndax nag yëglikaay ba moom nga xam ne day Dakar moom génn nañu seen ab liste liste ba nag 66 kilo ba yëglikaay ba da caa ñëw Mbaar Diouf Abdou xat di Koña moom it mu nga ca Fara mu nga ca bépp Diène mu nga ca ak ka nga xam ne nii moo di ab Ablaye Mbodj moom itam mu nga ca biir mu mel ni que nag drapeau sur la table mu nekk nii dem ëpp na bonte bu rëy rëy am na ci kenn ci équipe yi daal nangu da wax li nga xam ne mooy say waa kër wala ña ngay yóbbu waaye leneen loo xam ne dañ cay dem ca Leewtoo TV moo di Assane Ndiaye ak lambim ja nga xam ne moom la tëgg tamit dimanche muy booy bawal ak kii nga xam ne nii day moo di marle bu géejawaay booy bawal nag ba mu defee open press am day di wax ay waxam jëmale ko ca marle marle nee na ko day démb jàppal maa la dàq bëre te dama lay daan ci jël boo xam ne bu gaaw a gaaw a gaaw lay doon mu mel ni ki loolu moom Assane Ndiaye ak Baol production ñoo fa jaar pour dimanche ci ñu jëm waaye loo ci mën a dégg moom weekend bii kon jax lay doon ndax arène nationale li nga fay yëngal Assane Ndiaye gësam Iba Mar Diop waaye jak si moom ca dimanche ja moom itam Adrien Senghor la jëm de fa soo yéene yëngal ba mu yëngatu kon daal jàpp leen waaye fa nga xam ne nit mooy joof yor jàppal kii nga xam ne nii day mooy suñ production di Ablaye Diop moom itam dafay dem yëngal fa mu yëngu ci samedi ji loo ci mën a dégg daal lamb ji kon fi mu nekk ni moom waay ma ne dinañ ko xam ci weekend bi wallu teen la de ku ñëw ci pind ba ngay taxaw ndax yaakaar naa nag ku tàbb ci teen boo koy wallu moom boo ñëwee di nga say tànk tey seetu goj boo ko yor wala leneen Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen si revue de l'arène bi ñu ñëw ak yéen si jàngatu euh, arène bi Babacar maa ngi lay ah, fay Ndeye Coumba di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar si ajuma ji di nuyu ñi nga xam ne tamit ñu ngi suivre Leewtoo TV rek fu ñu mën a nekk si àddina bi ah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak si àjjuma ji di leen baal di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal te defal ñu gudd fan ak wér-gu-yaram defal ñu saxadatu daara yi ni ah di nuyu ñi nekk ci prison yi ñoom tamit di leen ñaanal yàlla yàlla oyofal seeni mbir ba génne leen foofu bu ñëwaat fekk si ñu ci biti yàlla gën a jubal xel yi ñi tëdd ci hôpitaux yi tamit yàlla na leen yàlla wéral waaye tamit ñi nga xam ne dañu wuy suñu borom bi yàlla na yàlla yërëm leen taxaral leen àjjana di nuyu àddina bi yëpp daal ndey kumba Amine Babacar lu ñëw nag si sunu lamb sunu lamb te lu mu ubbee muy combat buy am suba muy combat des invaincus muy ñi nga xam ni mus nu laal suuf diggante Gris Gris 2 ak euh, Reug Reug kenn ki ni ñu koy tuddee euh, jarbaatu Papa Kane keneen ki nu ñu koy tuddee doomu Mbaye waaw ñoom ñaar ñëpp sa est-ce que ay doom parce que su ma jumu rëg-rëg sax est-ce jarbaat la rëg-rëg doom la ci papa ndax yaakaar naa ne papaay rëg-rëg ak papa na ko yàlla yërëm ñoo bokk ndey ak baay kon defe naa kooku du jarbaat mais doom la Gris 2 tamit buñ ne doom la ci Mbaye Guèye xel nangu na ko ndax ku ne Fass ne Mbaye Guèye ndax moo sañ ci yàlla def mu encadré mbëri Fass yëpp bi mu bàyyi bëri ba ci Gris 2 ak ñi fi nekk tey moom it yàlla na gudd comme ni ñu koy rek loolu nag euh, mooy combat boo xam ne combat bo bu ñu ne combat des invaincus ah du noonu la ko tubaab bi waxee jàppal ne kon mooy combat bu méttee métti soo bëggee dégg dégg parce que li tax mooy ku mësula daanu te ñaar ñoo ñu mësuñu mësuñoo dégg mu ñu te mu leer na ne samedi moom amateuru lamb yi li ñuy ñaan si kàttan suñu borom mooy que ni faw ndam am am fu mu féete. parce que lu amateur bi bëggul niil ci làmb kon nag yaakaar naa ne combat bi mettit bi foofu la nekk parce que il faut am ko ci dégg mu ñël mais tamit daanu wala dem compétition ñàkk nekkul lu nga xam ne nii honte la wala muy ñàkk fulla wala leneen li ñuy bañ daal ci sportif mooy nga ñëw la sur si yow ñu xool la surtout sport individuel muy mbër mi wala muy boxeur bi nga summeeku ñu xool la xam ne yow mi entraînement andi woo ko loolu moom boo daanu da nga rusuloo say mbokk wala nga daw ba daanu wala nga def yëf yoo xam ne bokkul ci luy honoré sport mais kantaan nag ñoom ñaari mbër yi an actuellement ni ñu leen gisee ci seen ay open press ak seen i wax dëgg yàlla da ngay jàpp ni ñoom ñaar ñëpp jox nañu bés bi ak liggéey nañ li ñu waroon liggéey li ci des nag suñu borom bi la dese ku ci nekk bu subaa nga ñëw sabablu lu la yàlla may nga ñibbi ay xale lañu fi ñu yegg si tey ci làmb am nañu leen jiitu ci làmb fukki yoon ak juróom amaguñu kase bi ñu am amaguñu cër bi ñu am si làmb kon yaakaar naa daanu du yàq seen carrière au contraire da koy defar moom daal moo tax nag mu nekk combat boo xam ne nag metti na mais làmb comme li ñuy wax rek ndey kumba fala mais ku daanu rus Rousse Babacar nu euh, fàttali aussi que suba Luc Nicolas day marqué vingt ans présence am si biir si biir làmb ji loolu tamit lu am solo la Babacar. waaw loolu am na solo li comme li ñuy wax rek parce que tamit euh, àddina li ci am solo mooy que ni damay dégg benn mag di ma wax na nit ki li nga man maanaam doo ci faral di eh, def lu tax nit ñi ne la kii quoi lu lu lu lu lu lu spécial lu spécial maanaam da ngay def loo xam ne mënaguloo ko maanaam jéem loo managul bis boo ko réussiré ñu xam ne yow mii yaa ngi bëgg a nekk quelqu'un Luc Nicolaï nag bu ñuy wax ci côté boobu mooy que ni à chaque instant ay sorteem dañuy gis que ni day ñëw ak façon ñëw bu nga xam ne nii. maanaam dafay innover. innovation moom wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax dafa fekk ci moom baax. parce que bu mu duggee si lamb ba tey lamb bu mu tëgg boo xool dina ci dugal lu doy doy waar boo xoolee pay per bi ñuy coow moo ko njëkk indi am na yenn promoteur yu ko ci fekk si parce que xam nañ ne avantage su la gis nañ fi ay ay feu d'artifice def na ko fi gis nga Balla Gaye de Modou Lo seen combat 2010 ba ñu yegg ci làmb moo leen fa yóbbu gis hélico xam nga muy yoo xam ne daal dañ koy encouragé di ko ñaanal vingt ans mu yàgg ko feete mais di ci profité di nuyu promoteurs yëpp yëpp di leen ñaanal tamit réussite ak ndam ci seen journée yi nga xam ne dëgmal nañ ko di wax ne daal ku yokkul yaa wàññi te lig macha allah mu ngi yokk bu baax a baax. suñu jógee samedi ni ngi dem eh, stade Iba Mar dimanche ak Assane Ndiaye mu ngi fay tëgg Boy Bawal ak eh, ki xale bi ñuy wax Marley. waa loolu tamit combat bu ndeysaanu la comme ni ma ko waxoon rek parce que ñaari mbër yu jóge ci defar lañ de ay xale yoo xam ne ku ci ne bëgg nga tey fëgg buntu mag ñi te boo tolloo ci buntu boobu nag ah, jëm ci combat bu mel ni day metti trop ci yow moo tax ba nga xam ne Assane Ndiaye tamit comme li mu wax rek mu ngi bay waaram bu baax a baax ndax dimanche boobu stade Iba Mar Diop a fa nga boole ko ak ki nga xam ne nii moom mooy mbaytin bu école Mor Fadam ak yeneen xale yoo xam ne ñu ngi ci biir Ahmed Lagros ay Lis njaago ay xale yoo xam ne macha allah marle booy bawal nag ñaari mbër lañ yoo xam ne nii ku ci ne rek ah defet du la arrangé dimanche mais ndeysaan faw defet am ndax xalaatu ma ñu niil parce que ay bërekat lañu Marley dafa mën a bëre lool Ndeye Coumba fal waaye Boy Baol tam mën a bëre lool te il faut daal jël la am te li ñu leen di wax daal mooy ku daanu da nga dem sangu ji rek te préparé ju waat xam ne làmb loolu la woote. Babacar euh, loolu loolu moom am na solo nu nu dem euh, di démb yaa ngi woon foofu noonu yow ak Talla Ndiaye euh, Marley barki démb booy boole moo def open press démb Marley moo moom moo woote woon ak fansam yeeg presse bi xas na daal wax na nee na combat bi 3000 daal la may booy boole bu teg ko ci suuf. waaw loolu moom loolu la wax démb ak yaram bu tàng mbëri géej waay génn wër ko ak macha allah mbooloo ma tamit supporters yi bëri loolu open press am ah loolu nag comme wax rek communication man avant combat koy xaw di teg nii tuuti rek. parce que du bokk ak réalité bi ci biir làmb parce que làmb da ngay comme ni ñu koy waxee da ngay séentoo suñu papa Max Mbargane ñu koy nuyu di ko jaar da koy faral di wax buñ la séentoo fital da ngay fitt boo signalé gu jàddal droit parce que mbirum naxante la waaw li ngay wax nag ci sa communication avant combat du bokk ak ni ngay aborder combat parce boo ko dee faral di def yaakaar naa euh, mën na am du baax si yow te olof dane ku ñu xam foo jëm pour nga yegg dina jafe trop ndey kumba mais jàppal ne daal dinañ bëre combat bu neex ñoom ñaar incha allah ñu jógee nag si lutte euh, frappe bi dem si simple bi euh, fee si Leewtoo point net ni ñuy xamal ni que Jax dina tekk mise 1 million dimanche fee si Adrien Senghor ak aussi actualité bi nag bu gën a rëy si si lutte simple bi mooy drapeau chef de yaa ngi commencé région yi ni commencé di génnee si liste yi mais nag Babacar lu mu la bëgg xamal mooy liste yi moom métti na trop trop gars yi daal li ngi si xar fa xuupa bu métti te drapeau bi des na deux semaines waaw loolu moom du ci mën a ñàkk parce que làmb moo am ni mu tëddee tey ku nekk bëgg nga drapeau résultat boobu nga jël ko parce que am na enjeu fi mu nekk nii yaa ngi dégg loolu nag su amee yow miy def sa sélection di entraîneur yi ak direction technique bi di ngeen fexe xool nu ngeen koy nëbbee mais nag pour man jarul nëbba parce que li tax mooy que ni tey ak lu mën a xew moom liste bi di nga ko dévoiler te xanaa di nga wax ne liste bi nangam ak diw ak diw pour que presse bi mën ci jot région bi nga bokk xam ne diw ak diw ñi ñooy ñoo ñuy teewal ñu ma leen a teel a jàpp mais kantaan mais xëy nag dañuy nëbbutoon te seen biir parce que comme li li li am rek Fatick at yi passé lépp moo ko teglante di ko jël daaw dakaar ñëw indil leen problème ba nangu ko si ñoom yooyu bokk na ci li gën a indi enjeu bi te Kaolack ku ne xam ne ne bëgg na jël Thiès noonu raison yëpp sax a bëgg a jël mais daf ci am raison yoo xam ne da xam ne ñoom affaire bi mujj gi mujj ci ñoom lay mujjee xëy na moo tax ku nekk di làq ñu naan la nga woo Omes mu ne la wool Ibrahima Mbaye nga woo Ibrahima Mbaye mu ne la wool Cheikh Ndiaye nga dem Fatick ba fa ne la wool diw wala ñu tëj ay téléphone waaw loolu nag <laughs> si la bokk xëy na dañuy comme li ma waxoon sànq la rek ku ñu xam foo jëm doo yegg xëy moo tax ñuy jéem a làq noonu mais loo ci mën a dégg daal yàlla na yegg jàmm ñu passé ko ci jàmm que le meilleur parce que drapeau résultat bu lu neex daal te war a am sa mbuur ci mois de ak mise au 1 million. waaw Jax waaw moom tamit vraiment mu ngi bay waaram ndax lundi passé tëgg na combat Flit avec Fra bu neex sa jumi ba Mar Diop euh, dimanche bi ñu jëm mu jëm si waat Iba Mar Diop ak 1 million jag moom mention spéciale lañ koy wax ci lutte simple parce que moom vraiment du ngi ci di ci bay di ko gën a teg yoon loolu tamit dañ ko ci ñaanal yàlla dimanche daal mu réussir ko lépp lu mu bëgg mu am ko di nuyu tamit ay nitam ku mel ni nga xam ne sama xarit la di sama nit maa ngi koy nuyu baax a baax bokk ci Jax production. Babacar nu jeexalee ak point de presse su euh, président Alioune bi muy amalee si kanam fee si siège yu CNG bi si Léopold Sédar Senghor. waaw loolu tamit ah comme point de presse la wax daal kon journaliste nañ ko bàyyi xel parce que c'est le président du CNG moom moo jiite làmb ji moo woote conférence de presse 15 heures au niveau du CNG yàlla nañ ko yàlla nañ ca teew déglu ko ba xam lu wax parce kilifa moom bu wootee wuyu ji a ci war a am waaw dina la wax tamit wala mu jox la kon nañ ko wuyu ji incha allahu rabbi bu ñetti waxtu jotee waaw. si kàddu yooyu la leen di tàggoo incha incha allah donc si kàddu leen tàggoo ba leen di incha allah mais balaa boobu maa ngi nuyu Dadi Gueye astandine depuis Italie Khadija Diallo sama yaay euh, Aminta ak euh, sama doom Mohamed Diouf. waa noonu la fa demee di la nuyu di nuyuwaat encore une fois rek. di nuyu Aïcha mi nga xam ne tamit sama rakk la sama jigéen yàlla def mu xaw a am ay quelque kii moo tax ay gisu ngeen ko di ko nuyu di nuyu borom këram ah monsieur Niang di nuyu tamit sa doom boobu Mouhamed di suñu jarbaat di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre xam nga mais nag xam nga àddina dafa am lu si nekk tey ñun ñuy toog di wax dama naan ñun du ñun mais au contraire public bi la kon public boobu di ñu seetaan di ñu suivre amuñu seen fay encore une fois ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq lu fi jub rek nañu xam ne ñoo euh, yàlla la mais lu fi dëng tamit suñu matadi la mais Xaadim euh, Njaay Touba Italie dama koy nuyu Ousmane Diop moom Mamadou Kaolack Diallo nekk ba Lisbonne Argentine xam nga El Hadj Ndour ca Dubaï di nuyu ñëpp ah Khadiros Ndiaye Allemagne tuuti yaay Sarr Espagne du ñu fàtte kenn Baye Sall Paris xam nga di nuyu. Rimka ñoom Assane Sall Rimka moom kenn du moom moom dama ko naan moom man ñëpp Rimka Rimka Couture gis nga son poussin bi lii moo koy liggéey kenn du kooku Serigne Ndeye borom Touba Sandaga taal bi sëñ Abdou Karim Mbacke la Rimka Couture maa ngi koy bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla na loxo bi gën a. wér di nuyu tamit doomu ndeyam Samba Kara waaye tamit duma ma fàtte Kepes ah Kepes doomu ndeyu yàgg maar borom anniversaire bi tey Kepes yàlla na nga ko yàgg a féete euh, aminasi la waaw di la nuyu di nuyu Amina Silla di nuyu waa Paris yëpp di wax ne sa doomu ndey yàgg caméraman photographe yàgg. nuyu ma Odinga. waaw Odinga non kenn du moom moo la génne fii tey mbër muy ñaw gis ngeen mbër yi Odinga moo defal lii Ndeye kumba Fall kooku tamit ñu di ko nuyu bu baax a baax fàtte nag waa ñoom matu ñoom joor ak nga xam ne nag moom mooy defaral kanam gi muy muy joor temps yi moo koy defar waaye duma fàtte ñaari saareen yi Nicole ak Eliane maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a Mouhamadou Mansour mi ci ginnaaw tamit suñu booy bi di ko nuyu taala Talla moom defe naa Talla Ndiaye moom àddina yëpp xam nañ ko léegi Siri Lebu Ndooy waa boroom sar sarale yi